alquran ak oustaz Alioune Sall. bismillahi rahmaani rahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci la xarala wi seen mbokku Alioune Badara Socé Sud FM seen rajo ci seen njitaayu tafsir yi mu leen di defal bés bu jot ci waxtu wi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 weeru koor dellu si na wooru def lu baax weeru koor dellu na wooru weeru promotion ñu koy baaxu di defee diirub koor gi nag ñu am sansu bët bu set ñu am tafsir incha allah ci waxtu wi tabaarakallaahu di ndokkeel ak jaajëfal sunu directeur Baye Umar di ko ñaanal tawfiix ak Euh, mbir mu jub lu ko defee mbokk yi kon dañoo tegoon sunu baaraam lu jiitu nuy génn ci laay ju am solo ju borom bi subhaanahu wa wax ci suuratul xujuraat laay jooju borom bi subhaanahu wa wax ci suuratul xujuraat ñëwoon nañ ci ñaar ba jàpp ñett waaye nañ koy baax ju defe mooy jàng al aaya door a ci jéem ko firi ak jéem ko tekki aouzu billahi min ashaytan rajim yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unfa inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum cinda allahi atqaakum inna allaha caliimun xabiir sadaqallaahu alcaziim wa ballaga rasuluhu alkariim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ash-shahidin allahumma ij'al al-qur'ana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyamati shafi'a wa ala sirati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna an-naari sitran wa hijaaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa juudika wa karamika ya akramal akramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot laay ji la borom bi subhaanahu wa taala joxoon kim yónni woon ci nun muhammadun ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko yéen nit ñi su boobaa yonent ba dugg na ci biir yéen nit ñi su boobaa asaxaaba dugg nañ ci biir yéen nit ñi yéen nit ñi su boobaa taabicoon ya dugg nañ ci biir bi mu ne yéen nit ñi asalafu saalix magi démb yi dugg nañ ci biir yaa yoon naasu innaa ñun yàlla mii bind xalaq naakum bind nañ leen min vakarin ci baay wa untha ak yaay bind nañ leen ku ci ne ci yéen am baay waaye am yaay wa jaalnaakum ñu def leen ñu séddale leen shuuban ngeen nekk ay gi ay ay xeet wa xabaayila ak i giir li taarafu ngir kenn ku ne xam moroom ja li taarafu ndax kenn ku ne xam moroom ja xam ca moroom ja lum lum lum tële moom te moroom ja man ko ngeen xamante loolu ku ci nekk la nga tële te sa morom man ko nga dem ca sa moroom mu mu jariñ la ko yow tam lam tële nga jariñ ko ko boobu moo tax baat bi def taaruf ngeen dégg ca alxuraan wa taawanu waaw ay xeeti la ci euh, làkku arab waaye nag li taarafu li waa ji mante mënuloo ko toxul moo gën la li nga tële te aji man ko taxul mu gën la métier àdduna yi du ci la ñuy gënante métier àdduna yi du ci la ñuy gënante fu ñuy gënante inna akaramakum ka gën a tedd ca yéen gënante gi maa ci jublu tedd atqaakum mooy ki ëpp ak ragal yàlla ci yéen atqaakum mooy ki ëpp ak ragal yàlla ci yéen bu waa ji amee cinq ka am dix ko gën bu waa ji amee dix ka am quinze ko gën ku am quinze ku am vingt moo la gën waaw waaw ku am vingt ku am vingt cinq la gën ñu wuti cent <laughs> waaw ñu wuti cent seet tit tit akramakum inda allahi atqaakum waaw waaw nun rekk la loolu tax nag nuy jàng taqwa moomu ba mën a fexe ba kenn du ñu ci ëppale tabaarakallaahu mu mu dëppoog yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba aleykum siyaamu kama kutiba alal lazina min su ma baam teg ca laallakum tattaqun waaw <laughs> su ba ba jutoon ndey ndey faatu dara mi xëm mu firilaat ko ko waaw ndey faatu dara mi mu lëccëm mbooroom su ma bañutoon mu xëm ma firilaat ko ko ndax dama ko wax ne <laughs> yaayu la si na yaayu naasu waaw yaayu la na amunu yéen ñi gëm na amunu yéen jànq ji door a toll ci war a woor ren nga xam ne jóge nañ ci koorug daaw lu jiitu koorug ren di ñëw ngeen gis fi baaxu jigéen ngeen yëg ne mat ngeen jigéen léegi ndeysaan moo xam après koor gi un mois la moo xam deux moo xam avant koor gi un mois la moo xam deux moom daal wari nañ daaw nga door a tàmbalee gis say baax yàlla mu ne yéen xale yu jigéen yooyu kutiba aleykum siyaam farataal nañ ci yéen koor bu arab doon wax nag kutiba aleykunna lay wax waaye alxuraan bu wax aleykum kutiba aleykum siyaam farataal nañ ci yéen koor yéen jànq jooju nga xam ne ren ngeen war a tàmbalee woor ndeysaan allahu akbar boo ko seetee ci élection yi am na ñoo xam ne ren lañ am âge wate ba wate nañ ci élection yi weesu waaw mbir mi tam noonu la am na xale bu jigéen boo xam ne li may wax ni moom dana ko dégg yaayam dina xam ne ren ren jii diw daa war a woor xam naa at ma mam daloon nogay buñ ko ca yeexoon ba moytul mu koor koor gu gën gi muy woor waaye daal suñu borom ne ko kutiba aleykum siyaam faratal nañ ci yéen koor dégg ngeen waaw kama kutiba allazina ko farataale woon ci ñi leen mag ñi niñ ko farataale woon ci ñi leen mag xale bu jigéen bu ne bu fekkee ren lay tàmbalee woor am na ko ko njëkk woor koo xam ne moom woor na daaw am koo xam ne kii daaw jéeg la woor 2017 am koo xam ne kii la woor wax ak saa am koo xam ne kii jamono ji nogoy di tàmbalee woor ca la tàmbalee woor kama kutiba allaziina min qablikum ndeysaan jànq ji na sunu boroom lu tax nga nuy woorloo ndeysaan laallakum tattaquun dama bëgg ngeen am jom ndeysaan laalakum tattaqun dama bëgg ngeen am jom rikk waay yéen jànq ji tàmbalee wor ren am leen jom ju ëpp ñi leen jëkk woor am ndeysaan allahu mbokk yi bu ñu ko doon misaal kon xale bu jigéen ba ne sunu borom yow day sunu borom yow mi nga xam ne yaa ma bind ma dëkk quartier sàngam jëppal walla kastoor at mi ma juddoo at mi ma juddoo muy deux am na jànq joo xam ne walla xale yoo xam ne maag ñoom ñoo juddoondoo kenn ka oto fiir na ko ba faatu na kenn ka duggul école ndeysaan kenn ka duggul école waaw ka dugg na école waaye agul entrant siseem kenn ka nangam kenn ka nangam yow yàlla nga bàyyi ma fi ba ma toll ci aas bii ma toll tàmbalee gis baaxul jigéen bokk ci jigéen ñi nga xam ne ku leen dugal ci néeg ñu am doom néegu sëy yàlla danaa la wooral ba wooral la koor gu gën ñi ma mag koor gi ñu doon woor allahu akbar mbokk yi waxtaan woowu doy waar la tëdda tëdda tëdda wu yaram loolu la jànq bi wax sunu borom waaw misaal naa ko ca Italie rekk góor ga xëm <laughs> waaw góor ga xëm fa fàtte naa dëkk ba waaye dama ci doon jàngale ni sëriñ Fallu doon jàngalee julli ca kasu rajab ga ni yonent bi doon jëlee julli waaw te léeg-léeg sunu mbokkum daara sunu sëriñ Ahmad Rafa jaar ca yàlla ko yàlla gën a sàmm et di courage sëriñ Fallu nee na ca njàngale ma ci julli maa ngi ci xujuraat mbokk yi aaya treize inna akramakum indallaahi atqaakum sëriñ fàllu nee na radiyallaahu anhu bi yonent bi jëree julli romb lam fa romb lépp ya xew fa muy ñibbisi ñu ëmbal ko ab ëmb mu romb yoon yàlla Muusa alayhi salaam Muusa ne ko sa ëmb bi lu ci nekk mu ne ko julli mu ne ko ñaata la mu ne ko juróom fukk Moussa jàpp ci sikkim ba ne ko juróom fukk mu naa mu naa sa xeet yu mënuñu ko ndax programme yeeg temps yeeg liggéey beeg teel a xëy ak lu ne mu jàmbatal ko ne ko mënuñu ko demal sa borom wàññil la ko daal di convaincre yonent bi yonent bi dem ñu wàññil ko Serigne Fallou nee na muy dem ñu koy wàññil muy delsi Moussa di ko yebal muy dem ñu koy wàññil muy delsi Moussa di ko yebal ba mu des juróom Serigne Fallou nee na Moussa ne ko demal mu wàññil la juróom yi defal la ko ñaar mbaa ñett nee na yónnent ba ne ko rus naa dellu naa yóbbu juróom yi rek daañu ko mën <laughs> waaye man waxtaan li ma ci li ma ci tax a li yëngal sama yaram mooy suñ fal mu ne ñaari kilifa ñoo wax kilifa gi nee na duñu ko man kilifa gi na man nañ ko nee na gi ne duñu ko man mooy Moussa kilifa gi ne man nañ ko mooy suñu kilifa gii di Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bu ñu demee yomal xiyaam sëñ Fallou ñu taxaw Moussa yay ko ñun daañ am gàcce dëgg la de mu ne bu ñu demee yomal xiyaam yonent bi yay Moussa ñun dañ am victoire wax na dëgg de mu ne kon nu war a def mu ne julli bu julli fu dara nekkul ndax bu ëllëgee yonent bi ne Moussa lu ma la waxoon moo gën Moussa naan ko lu ma la waxoon rek góor ga xëm <laughs> waaw fële ci Italie góor gi xam waaye wax na dëgg koor gi it noonu la yéen jànq ji farataal naa ci yéen koor yéen ñi war a wor ren ni ma farataale liñ farataale woon koor gi ci ñi leen mag la laalakum ndaxte xëy na yéen jànq ji tattaquun ngeen am ragal yàlla goo xam ne gi mooy ëpp gi ñu leen magoon am jànq bi na ko yàlla mun laa koy defe danaa ko woor non seulement danaa ko woor waaye maa ngi lay sant ci ñi ma juddoo ndooloon te dugg ñu école ñi ma juddoo ndooloon te tabarkal la ñi ma juddoo ndooloon tabarkal la waaw ndeysaan jànq ba daal dem ca kër gu fi firi la woon ca bopp ba ndeysaan sànni ndax dégg na ci conférence yi yi ñu ne baaxul mu na ko wàcc mu jànq bi foo jëm mu ne damay transhumé ndeysaan <laughs> jànq bi foo jëm mu damay transhumé ah bon waaw waaw janq bi day transhumé nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo koy campagne <laughs> ñun ñi nga xam ne ñooy campagne ndeysaan yàlla nu yàlla yërëm waaw noonu ñuy campagne jànq bi dégg campagne bi ne day transhumé fu mu jëm mooy nee na léegi léegi daal moom dafa nekkoon ci xis bu benn parti bu ñu wax acheytaaniya noonu la parti bi tudd jànq bi nee na koor ren gii ci lay jóge ci parti boobu dem ci xisbu rahman wala arrahmaniya ci parti boobu la jëm léegi xam naa danañu ko mitingal incha allah miting xam ni ñu tuddee miting bi mooy mitingu ñëw xam ne professeur dinañ ci dimbale gaa yi ci message yi ñu may yónnee ci léeg-léeg waaw seet <laughs> mbokk yi janq bii de ni def nar na ko janq ba dindi yowoon ca bopp ba ndax dégg nañu ne baaxut ci campagne bi tubayu góor yi mu daan sol mu dindi ko wax mu la jur ñu foq yi ci óom jànq ba dindi ko yëm daan sol muy yaraax mu ne bàyyi na ko mu yow foo jëm mu ne damay transmettre te parti bi ma jëm bëgguñu yooyu ban parti la jëm xisbu bi tudd arrahmaniya ban parti la jóge ci xisbu bi tudd asheytaaniya te kat mbokk yi loolu doog moo fi am rabbaniya ak seytaaniya rabbaniya mooy parti bi suñu borom yor seytaaniya mooy parti bi iblis yor te ñaari parti yooyu doom nga fi am nag amul ñett ndax démocratie yàlla nun la toll ku meeri fii demal fee waaye démocratie yàlla tollul ci euh, tabarkàlla multipartisme ngeen baal ma mbokk yi jànq boobu loolu la wax bi mu déggee laay ji jànq boobu loolu la wax bi mu déggee campagne bi janq boobu loolu la wax ndeysaan allahu akbar sunu borom ubbil ko buntam waaw ndeysaan ubbil ko buntam recevoir ko waaw waaye ndeysaan jamono yi ñuy dégg salimtu salimtu min al aadaay turan maa tija li rabbi wa baabullaahi lam yakun murtaja moom suñ tubaa ko ndeysaan waaw baabullaahi lam yakun murtaja buntu yàlla bi tëjut te tëjagut kon xale bu jigéen bi mën naa transhumé te pense que transhumé na sax ndeysaan pour dellu laay ji del si nag songu xale bu góor bi maa ngi suratul xujuraat aya treize inna akramakum indallaahi atqaakum ci gën ci yéen mooy ëpp ki ëpp ak xale bu góor bi yàlla ne ko yàlla lu si na amanu yéen xale yu góor yi ma gëm yéen booy yi ma gëm <laughs> kutiba aleykum siyaamu farataal nañ ci yéen koor farataal nañ ci yéen koor ndax yéen itam toll ngeen ci ku leen joxoon jabar ngeen ne ko doom a ngi ni koo wolof di waxe ndax tëdd ngeen gént di jot joteeg jigéen ba yeewu seen tubéy taq ma niw kon nag kutiba aleykum siyaam reen ngeen war a njëkk woor ndeysaan allahu akbar ak si ngeen ci dix-huit ans wala euh, gis ngeen baaxu góor kon nag yéen ren ngeen war a njëkk a waru ndeysaan xale yi judd woon mille waaw mu ne ko kama kutiba ala lasin min qablikum niñ ko faraataale si ñi leen mag ñi leen mag nga xam ne ñoom daa woor nañ jàpp daaw jéeg jëm kaw xale bu góor bi ne sunu borom lu tax nga nuy woorloo mu ne la laallakum na dama bëgg ngeen am jëm dama bëgg rek ngeen am jëm te te nit ñu ngi koy jàngale jom ci lekk ak naan kuy def loo gis lekk ñàkk jom koo kuy gis loo gis naan da ñàkk jom mhm. xale bu góor ba ne yàlla dégg naa li gone gu jigéen gi wax waaye maa ngi lay waata duma du ëpp jom ndeysaan daal di maasale kawar ga commencé ko peñe xale bu góor ba caq yam doon takk ak ceen ya mu dagg ko may xale bu jigéen bi ne ko lii jëlal ndax yow téerewuñ la ko ci dégg naa ci meeting bi <laughs> dañ ma koo tere allahu akbar da di dagg yooyu jox ko jéem bi mu doon sol tam foq mu dindi ko moom xale bu góor bi sol col goo xam ne kenn du ko gis di ko boole ci benn groupe ndax fi ne dëkk bi col goo col am na fooy bokk loolu moom yonent baa ko jàngale woon man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum xale bu góor bi changé ni muy solo changé comportement bi teg yaayam fu mu ko tegutoon teg fa papaam moom daal tabarkàlla daal ni suñu borom ginnaaw koor day maye jom danaa woor koor goo xam ne gi ñëpp daañ xam ne jom nga ci biir gis nga kon attaqwa loolu rek lay firi laalakum tattaquun bind yi nag jaaroon nañ ci ci ni ko boroom xam-xam yi firee waaw ni ko boroom xam-xam yi firee Seydina Aliyu ca la bokk Abdullahi ibn Mas'udin ca la bokk waaw ibnu Habib ca la bokk Abu Darda ca la bokk al Thawri ca la bokk ibnu Abbas ca la bokk alxasan ca la bokk Omar ibnu Abdul Aziz ca la bokk Abu Moussa ibnu Ayn ca la bokk Maymoun ibnu Mahran ca la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ku ci nekk indi nga sa kàddu ci lan moo di at taqwa waaw lan moo di at taqwa gi nga xam ne sunu borom ne na ku ko ëpple yaa ëpp teraanga fa moom mbokk yi am solo gu ragal yàlla am solo feeñ na lool moo tax ñëwoon nañ ci bind yi weesu ci dana am ay prix yum firi yu bare bare bari ndax kalimatul ixlaas bi ñu tuddee laa ilaha illallah danañ ko tudde kalimatu taqwa laa ilaha illaa nag li muy tekki mooy ku dut yàlla doo yàlla ku yàlla doo yàlla li muy tekki mooy ni may dunde kenn du ko tëral illallahu ku yàlla sama système de vie kenn du ko tëral illallahu ku yàlla boo ca tegee muhammadun rasulullah mooy kenn du ma ko jàngal ku dul muhammad mbokk yi foofu lu am solo moo tax borom bi tuddee laa ilaaha illallaah mu tuddee ko kalimatu taqwa bu ñu demee suratul fatih aaya vingt-six aoudu billahi min alsheytan rajim is jacala alladina kafaruu fi qulubihim alxamiya xamiyata aljahiliyata fa anzala fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminina wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanu axaqu bi axaqu biha wa kaanu axaqa biha wa ahlaha wa kaana allahu bi kulli cheyin alima sadaqallaahu al-aziim yàlla nee na moo jël ña nga xam ne kafaru wedd nañ mu def ca seen xol ya xamiyatal jaahiliya waaw ay sidi siditi ceddo waaw ay siditi ceddo ay réaction yi ceddo ay cotu ceddo bi mu leen ko defee ñoom nag ñoom ñoom alisina kafaru bañ nekk ca loola nga xam ne lu ñuy def lu ne lu ñuy réactionné du baax ceddo lay doon boo leen waxee la ñuy tontoo du baax boo jëfee lañ lay fayoo du baax rekk ba far deg fa suñu borom ne leen nag daa dem ca lazina amanu mu wàcceel leen sakina allahu akbar mu wàcceel leen sakina waaw euh, suñu mbokk Hadj Malick Ndiaye fii ci rajo bi nee na lu loolu tax sootul fatihi neex ko nee na gis nga sakina yooyu mu ne mu ne moom liñ koy firee neex na ko lool walaay ndeysaan xaaj malik yàlla jël sakina googu wàcce ko ci yonent bi wàcce ko ci jullit yi tax tegal leen ca nag kalimatu taqwa lu tax wa kaanu axaq biha ñoo ko moom ñoo ci gën a yey wa ahlaha ñoo ko moom na kalima googu muy laa ilaha ñoo ko moom wa ñoo ca gën a wala bokk wa kaanu axaq biha ñoo ca gën a yey wa ahlaha te ñoo ko moom kon baatu laa ilaha illallah ndeke mi ngi firi mi ngi ubbi wenn yoon wenn benn tëli péage boo xam ne bii ma nga jëm ca borom bi subhanahu wa taala wa kaana laahu bi kulli shay'in alima yàlla lépp la xam mbokk yi maa ngi ci suuratul xujuraat aaya 13 inna akramakum inda allahi ñaareel ba ci baatu taqwa moomu te nu koy jéema a ci koor gi ndax kuy aji màkk mën koo yóbbu yàlla dafa digal jaam yi yépp képp koo xam ni bind na la digal na la ko rawatina ñi nga xam ne ñooy ay mu'minuuna waaw waaw nga xam ne ñooy ay muminuuna rawatina ñooñu aoudu billahi min alsheytaani rajim yaa ayuha alladina aamanu ttaqu llaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun ca Ali Imran yàlla nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ah yéen ñi nga xam ne gëm ngeen dolli leen ca ragal yàlla nekk al imaanu wa taqwa bokkuñu al islaamu wal imaanu wal ihsaanu wa taqwa wal wusuulu yooyu bokkuñu ittaqullah wabtaqu ilayhi l waaw ndeke bokkuñu waaye fii mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yéen ñëpp na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal bu ci kenn dee te fekk ko mu nekk bokk ci mu ne waaw loolu ay aay yu bare bare bare wàcc na ci euh, ci bunt boobu ñetteel ba wasiyatu al anbiya li qawmihim yonent yi ku yàlla mës yónni wax nga say mbokk ne leen alaa tattaquun bu yàlla mës yónni rek loolu nga wax say mbokk alaa tattaquun xanaa yi du ngeen am jëm bi lay yéen a ñàkk jom yonent bu yàlla mës yónni rek wax nga ko saw xeet <laughs> waaw waaw ba dama ci shuara shuara dajal nañ ca yonent yépp noohun wax na ko hóodun wax na ko saalix wax na ko lootun wax na ko Shuaybu wax na ko waaw waaw Ibrahima wax wax na ko alaata tattaquun alaa tattaquun rekk tabarkàlla mu ngoog kon taqwa moomu muy am muy ragal yàlla yonent yi dënkoon ko seen xeet yi ñun tam nañ ko dënkante ñun tam nañ ko dénkante ba ñu ñëpp ñu am ak taqwa jooju alquran di junj ci koor ñenteel ba euh, talabullahi min al xalq ibadatuhu li taxqiqiha yàlla dafa sàkku ci jaamam yi sàkku ci mbindeefam yi ñu jaamu ko ndax ñu am taqwa googu li taxqiqiha ndax ñu mën koo réaliser jaamu ko moom borom bi ndax taqwa googu muy wax nga mën koo réaliser bokk ci groupe bi bokk ci course bi ndax am na ñoo xam ne tabarkalla départ guñu te course bu kenn de bu bu bu maanaam course bu am ñu départ gu doy na waar dafa am benn benn course bu ñu organiser fële ca ca Thiès tudde ko course mbaam course boobu lu ko gën a neex amut waaye lu ko ëpp am njàngale amut ma wax la ko tey waawaw ñoom ëmma <laughs> yàlla yàlla yokk ko wér ñoom ëmma njaay bu ñu taxawee ba mbaam yi ràng ba noppi ñu defal leen hymne bi ak bàkk yeeg ñoom seen yooyu ba ne la déparé donné <laughs> mbaam yépp jëm penku da ngay siin mbaam moo xam ne soowu la jëm ki war mbaam mi wàcc di dóor pour mu walbatiku nga xam ne mbaam yi mën nañoo àgg fañ jëm ba delsiwaat fi ñu déparé woon moom mbaam mi moom sens contraire bi la def au lieu mu jëm penku daw jëm-jëm ñaaju déedéet moom mu jëm walbatiku jëm nii mbokk yi <laughs> course boobu la sunu borom bëgg ñu taxqiiqu maanaam ñu bokk ci départ bi te bañ a am fu départ waaw waaw <laughs> sunu borom subhaanahu wa taala moo tax mu santunu ñu jaamu ko ndax ñu am loolu aoudu billahi min asheytaani rajim wa anna hada siraati mustaqim siraati mustaqiman fattabicuuh wala tattabicu subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassaakum bi zalikum wassaakum bihi laallakum tattaquun calan cal anam aaya 153 sunu borom nee na yéen ñi bëgg a tàmbali course bi bëgg a dem ba am taqwa bëgg ko taxqiq bëgg ko réaliser bëgg ci bokk ci ñi nga xam ne atqaakum ya wa anna haada na ngeen xam ne lii siraat mooy samaw yoon mustaqima moo yoon wu jub bi te kursu oto yi boo gisee këpp yi di bari mooy tournal yu bari yi booy seetaan ci télévision bi course oto la ci ëpp day am ay tournal tournal yu bari yooyu bokk na ci liy tax oto yi di këppu sunu borom nee na moom course bi ñuy def pour dem ci moom amuli tournal mustaqima ma tax ihdina siraatal mustaqim léegi nag rek waay bu ñu foo départ bu ñu mal départ waaw amuti virage lu am mooy samp saw xel rek fattabiuhu topp leen yoon woowu moo tax yoon woowu boo ko toppee bu sa vitesse baaxee bu sa vitesse yéexee booy daw cent booy dem quatre quatre vingt yow daal toppal ca yoon wa rek wala tattabiu subul waaye bul bul jàdd bul jàdd gis nga buñ fi jógee di kursu topp ila tuuba <laughs> ila tuuba bi sunu borom ne haza sirati mustaqiman kon dafa dafa joxoñ aw yoon waaye fi nekk nii xoolal yoon woowu boo ko toppee li ci jàdd ci ay yoon waaw boo déparé jël ko jàdd bi njëkk maa ngi yaakaar ne mooy jàddu pikin bi waaw nga teg ca jàddub caaro yi waaw nga teg ca jàddub kër masaar teg ca jàddub euh, tëngéej waaw gis nga yooyu sunu borom nee <laughs> mooy subul yi bu fekkee course la gars yi départ jël péage bi yow jàdd jàdd yooyu boo ci jàdd rek bokkutoo allahu akbar waaw alhaji Dramé jàdd jàdd yooyu ku ci jàdd ci benn rek bokkutoo ci course bi ndax jàddu jàddu autoroute péage yi dadul jàdd jàdd yu tuuti <laughs> boo ci xasee jàdd bala ngaa delsi <laughs> li may xam ngeen ko waaw tabarkalla boo ñëwoon war a jàdd jàdd jàddu Cees wala Kër Madaaru nga romb ko li fekk ak goo xombal doo mën a génn ma wax la ko bu tax sunu borom dinu moytuloo jàdd jàdd yooyu mu tudd ko subul waaw damay misaal waaw damay misaal yoonu yàlla wu tudd siraatu mustaqim moog péage apéage ñooyam waaye subul yi moog moog maxaraj yi exit def naa nu la ngi tudde ñooyam waaw ñooyam tabarkalla seet <laughs> nga ne ko suñ jàddee luy luy xew mu def fa tafarraqa bikum an sabili ngeen tàggale ko yoon wi ko ci jàdd rek tàggalikook yoon wi te ku tàggalikook yoon wi danga fay ca fa nga jàdd te dellusiwaat dana la jafe daalikum wasaakum bi yàlla mu ne lii laa leen dénk laalakum xay na tattaqu na ngeen bokk ci course bi mbokk yi maa ngi suratul xujuraat aya treize inna akramakum indallaahi atqaakum yàlla jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot juróomeel ba sunu borom jàngal nu ne ki mu yónni woon ci noonu danañu wax fan la ak ragal yàlla nekk waaw mu ne mu ne ko waxal ma leen ko alayhi salaatu salaam daat ne saaba yi kaay leen dama leen soxla ñoom ñëpp ñu ñëw ci la Abu Hurayra bokkoon Buxaari yi moo nu ko nekk li mu ne leen laa taxaasudu bu leen añaananti dégg saabay na ko waaw mu ne walaa te naaja suu waaw bu leen ayibalanti dégg ngeen ñu ne ko waaw walaa te baaxadu bu leen soxoranti dégg ñu ne ko waaw walaa te daabaru bu leen wananti bu leen dummoo yonti dégg ngeen ñu ne ko waaw yonti bi moo nuy jàngal walaa yabi baadukum ala bay baadin bu bu kenn ci yéen jaay ci kaw njaayu morom ja ndax bëgg bëgg a jare dégg ngeen ñu ne ko waaw wa kunu ibadallahi ixwaana ngeen nekk ay mbokk yéen ñépp dégg ñu ne ko waaw mu ne al muslimu muslim jullit bu ne buy wër mbokkam kum njëkk a jot jullit rek na jàpp ci loxo ba jullit bu ne buy wër mbokkam mbokk bii bu njëkk jot rek na jàpp ci loxo bi dégg ñu ne ko waaw laa yaslimuhu boo jàppee ci loxo ba bu mu ko tooñ wala yaxuruhu bu ko bu mu ko seetaan dégg walla wala yaxqiruhu bu mu ko xeeb nee na ñett yooyu ab feebar la ci biir ab jullit ci moroomum jullitam jullit bu tooñ moroom ja dangaa feebar jullit bu to jullit bu seetaan sa moroom dangaa feebar waaye jullit bu xeeb sa moroom dangaa feebar dégg ñu ne ko du nu du nu tooñante dunu nu seetaanante waaye du nu xeebante allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen at taqwa haahuna ak ragal yàlla nag ñu ne ha mu ne nekkul ci dàll yi ngay sol nekkul ci tubëy ji ragal yàlla nekkul ci ab xaftaan ragal yàlla nekkul ci grand mbubb déedéet ragal yàlla nekkul ci mbaxanam mooy sol mu yéen mu ne maa la ko wax ragal yàlla nekkul ci façon bi ngay toogee nekkul ci doxin mu fu ragal yàlla nekk mu ne ci xol la nekk waaye bu nekkee ci xol bi nag mooy jëfloo cër yi loolu daal di joxoñ dënd ba nag def ko ñetti yoon ragal yàlla nekk fii la ragal yàlla nekk fii la ragal yàlla nekk mu ne julli nag ki ci gën a feebar julli ji ki ci gën a feebar jullit yi ki ci gën a feebar mooy kii xeeb jullit ni moom ah waaw waaw bi xasbi mriin min acharri an yaxqira axaahul muslim jullit bi gën a feebar ci jullit mooy jul buy xeeb mbokkam soo gisee jullit xeeb jullit xeeb ko ci am-am wala xeeb ko ci askan wala xeeb ko ci sant wala xeeb ko ci mbooloo wala xeeb ko ci pas-pas ni mu xewe léegi waaw yonent bi ne kooku yées jullit yi rekk waaye mbokk yi ndekete kon waruñoo waruñoo xeebante mukk waaw mu ne kullul muslimi muslimi xaraam kullul muslimi alal léppi jullit léppi jullit sans interdit ci bépp jullit yoon wa jëm ca deret tuur deret ci jullit bu ca jaar bul ko tuur yoon wa jëm ca alali bu ci jaarte bu jëm ca derub jullit bu ko aarte bu ko tuur allahu akbar derub derub jullit te mooy teg ci deram bi lu jaaduwut àdduna nag léegi weesu nañ teg ci derub jullit lu jaaduwut waaye teg ci derub kilifa diine lu jaaduwut lañ gën a ñeme léegi ndax ku ko def def ca YouTube YouTube day xool say vie say vie mooy yow li nga wax ñaataa ko seetaan ka koy natt mën naa xam xamatu saaga xàmmewut nangam moom lim xam mooy lii nga dugal ci biir ñaataa ko seetaan te nit ñi bañ nañ kumpa bañ kumpa goo xam ne tey soo su ma su ma formé woon ab groupe tuddee ko groupe euh, poto tamaate groupe poto tamaate woo professeur Djibi <laughs> ak suma technicien bi Alioune Badara Socé woo ñoom Maodo Faye tudde groupe bi groupe euh, poto tamaate ah ku ci ne yor benn poto tamaate ñu ñu xuju xujuxal ko def ko ci biir ku gis affaire bi rek daal di cliquer pour bañ koo kumpa bi nga ko clip cliquer am na loo jox waa ji keneen clique am na lu mu ko jox ba baa muy mat dix mille cliquer wala douze mille wala lu jëm kaw tabarkàlla boo ko laaj ñoom Pape Demba xam nañ ci lu gën a ëpp lii ma ci xam yi mbir maa noonu kon kullul muslimin alal xaraam damuhu maaluhu irduhu maa ngi ci suratu al xujuraat maa ngi ci aya inna akramakum indallahi atqaakum mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot nga bëgg bi beneen tomb ci inna akramakum indallahi atqaakum mooy tomb meññitum taqwa meññitum ak taqwa luy meññitum taqwa mooy avantage yi nga xam ne moo am ci ku am taqwa ginnaaw bi nga xamee ni akramakum indallaahi atqaakum ak ragal yàlla day jural nit ki yàlla bëgg ko waaw ak ragal yàlla day jural nit ki yàlla bëgg ko waaw waaw yàlla ku ko ragal rekk mu bëgg la waaw audu billahi min asheytaani rajim kayfa yakunu lil mushrikina ahdun inda allahi wa inda rasulih kayfa yakunu lil mushrikina ahdun inda allahi wa inda rasulihi illa allazina aahadtum illa alladina aahadtum inda almasjidi alxaram fama staqaamu lakum fastaqaam fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin waaw surtout tawba ay set yàlla nee na dafa ñuy laaj daf ñuy laaj loo tax ngeen di joxanteeg musrikoon yi loxo lu laaj naa leen ko te yàlla moom du joxante moom loxo yonent bi du joxante ñoom loxo pourquoi yéen ngeen koy def ñenn rek laa leen may ngeen joxante ñoom loxo mooy ña ngeen séqaloon la ngeen doon séq indal masjidil haram rekk waay ginnaaw séqoon ngeen loolu indal masjidil haram sàmme la ngeen séq na ngeen ko sàmme lu tol noona ndax sàmm googa moo leen di jural ak taqwa te ku ragal yàlla yàlla bëgg na la yàlla mu ne ku ma ragal bëgg naa la waaw waaw baamtu na ko ca tawba aaya 4 inna allaha yuhibbul muttaqin baamtu na ko ca ali imran 76 fa inna allaha yuhibbul muttaqin kon ku ragal yàlla ku ne yëgal ne yàlla bëgg na la lu dig ragal yàlla jaar nañ ci waaye mooy imtisaalul awaamir wëcc na bu nawaahi waaw jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi ñaareel bi ci walla boog ñetteel bi ci li ragal yàlla di jural nit mooy yërmande yàlla ci àdduna yërmande yàlla ci àllaaxira teg leen seen baram foofu ñu ñaan suñu borom dund ba ëllëg te weesu ko ñu ñëw ci tomb ñaareel boobu jàpp ñett ci samaraatu waa jéggulu soxna yi